ca Walf FM Kaolack Alhassane Ba ñu ngi lay nuyu Abdoulaye maa ngi lay fay xibaar googe nu mu tëddee ab Abdoulaye kon euh, ni nga ko junjee woon sànq rek ci li nga xamante ni moo di euh, ci direct bi ñu doon def euh, léegi ni accident bi am foofu ca sorti daaru bag bi mhm. dafa am juróom-ñetti nit yu si ñàkk seen bakkan kon muy ci woto bu ndaw lañ nekkoon seen oto bi nag dafa dafa daje ak li nga xamante ni moo di benn bus boo xam ne dafa yóbbu woon ay nit yu jóge Poroxaan ci booru Touba di dellu si ba ñëwee ba daaru bag daal di daje ak woto bu ndaw ndaw boobu euh, ci euh, wax sax ñu ngi naan oto bi amoon na lu mot fukki nit yi ci nekk waaye juróom-ñett yi moom ñàkk nañ euh, seen bakkan muy li nga xamante ni di xibaar bu tiis bu ñu fi jot nit ki léegi ak vérification comme dama ne woon rek dinañ mhm. ñëwaat ak yéen ci lu gën a leer moo tax ñu duggaat rek di leen wax ni kon juróom-ñetti nit ñoom ñoo mujjee ñàkk seen bakkan ci l'accident boobu di woto nag bu jóge woon foofee ca Porokhane dajeek beneen bis boo xam ne dafa wàccee ay kiliyaanam ba pare di dellu jiwaat ngir jële ay kiliyaan foofu ca hmm. Poroxaan ma ngoog euh, Daaru Bag ma nga ca yoonu Gosaas ñu ci yoonu Gosaas ci sortie bi rek euh, fa la accident bi amee Daaru Bag daanaka boo fa ngay euh, jàddee rek daal di dem ngin gi néew croisement bi jëm ngi gi néew daanaka hmm. fa la nekk wala nga continuer ci Jurbel sapeur mujjee na ñëw taxawu leen wala fuñ ci toll waaw ñëw nañ ñëw nañ ba blessé yi sa ñenn si ñoom yóbbu nañ leen ca hôpital El Hadj Ibrahima Niass euh, bu Kaolack euh, li nga xamante ni nag euh, blessé yi njëkk a yóbbu. Mm-hmm. koor yi tamit ñu ngi di assumer ne foofu ca morgue bu hôpital Ibrahima Niass bu Kaolack muy juróom-ñetti nit kon ñu ñàkk seen bakkan ci subaak tey gi Abdoulaye. ngoog lay jaajëfal Alhassane Ba dañ ci dikkaat incha allah ci googule xibaar tiis lool ci accident goo xamante ne am na ca Daaru Bag. ca yoonu Gossas ca sorti ba juróom-ñetti bakkan ñoo rot ci googu lépp accident ci jamono ji ñuy addu ngeen di teewlu ab woto bu ndaw moom fa mbëkkanteeg eh, bus ñooñe nag ñoo nga jóge woon ca màggalum eh, Poroxaan incha allah dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo Alassane Ba mu ñuy toppal googule xibaar jëm ci accident ga am ca Daaru Bagg juróom-ñetti doomi aadama ñàkk ca seen bakkan ñu bari jëlee ci ay gaañu gaañu yu méttee métti